donc yow ko góor ki yaay comprendre. beneen bi waa ji Mambay la. ah Mambay. Mambay lu mu defati. dafay génn ak Awa Seck exemple la rek waaw <laughs> waaye Cheikh Dara. ah ah, ah. du jàkk ah, du day jàkk ba muy du jàkk du église bi. Cheikh Fall na ak Awa. te bàyyante nañ. waaw. ah yéen itam te bànti man ni génn ak kañ lañ bàyyi ci salaamaaleykum nga bëgg ñu bàyyi. toog ba jëmi jamono. waaw. Mambay convoqué Awa kër Cheikh. Ah, ah. ah yow il faut que dugal ma ci test dama bëgg explication bi leer. dégg nga yow sa waa de foofa nag am na bu ñu ko jagleel fii mi ngi jëm mooy chauffeur taxi bi mi ngi ñëw. <laughs> léegi Mame eh, eh. taseeg awa kër Cheikh. Hmm. Cheikh bay leen ñuy waxtaan. ah oui pour juboo bàyyante woon nañ mais xam nga Mame Mbaye ba mu ah, convoqué awa awa ñëw na kon mbëggeel des na mais Mame Mbaye ne au lieu ma waxu juboole dafa doon forcer awa pour séq ak moom. bon rek. awa ci lay bañ maam bay jëlub kurpañ teg ci bët sikk rek xotti yëre awa yées rek summeeku summi awa bon rek fa muy nag fas yéene siq ak awa ci la Cheikh ni jarees daa sonnoon atte leen <laughs> daa sonnoon fi mu toll nii maam bay nag mi ngi ci loxol yoon moo yay waaye ci mën mën ngi mën na simi na simi awa def ah, ah. cee bañ a àgg ah, awa <laughs> mu ah ah mantulaay may jàmm baa solo woon jiin léegi ba dee nga xotti xot ci lañ wax dama ni. ah yuuxuwul moom it. yuuxu na yuuxu yi moo alerté Cheikh. yéex naa yuuxu kon Cheikh dugg waxuloo. Cheikh da xam naa dafa sori mbay bàyyi ñu. mbaa mbay tam fekk na waaye tamit amatul kenn. foofa na mii ab chauffeur clando la. beneen bi foofa na ab chauffeur clando la.